Thank you. Habib tey daal bi xibaar bu neex ma lay indil. ma nga juddoo ba léegi mosoo koo dégg laa la wax nii. gaayo ma. gis nga kam dégg nga camion yi doon piip piip démb ci dégg naa ko dégg naa ko. ndax ñëwoo rek a ma métti. dama doon nelaw nga dégg ko te ñëwoo. dama doon nelaw nag. ah mu damaa bëgg nelaw. gis nga soxna bi dëkk ci ginnaaw fii. waaw soxna la camion doon ñëw buntu këram laa la wax nii. Ah, ah. billaay laa la wax man dafa sax. dëgg la. gis nga suñu doon jàpp camion yi sax ca ca ca laa ci doon wàccee sax ca laa bokk. Ah, billaay camion yi lépp luy xeetu teraanga rek mën nga ca biir camion yi. da koy jaay. waay jaayul lépp teraangay koor kese la. teraangay koor. waay teraangay sukkaru koor kese. ah kii def na lu rëy. ci camion la wax meewa nga ci café nga ci sukkar ak. ah camion ah, formance sukkaru jabet sax ngi ci biir. ah na ris na camion xam nga nen bu ci duggee day toj ay nen sax da koo indi. ah kii ris na ay nen sax na ris na. leen laa lay bëgg a xamal. waaw. sa doomu ndey laa mosuma la digal lu lay gaañ. loolu de am moom. gis nga siiru mii ci biir. laa bëgg nga koleel ba a seere ko. siiru mii. na saf sàpp rungaas bul ko may dara. pour la. na la jox suukar koor bi sa moromu jéegi. suukar koor. yow jéeg nga que dina ma ah, ma ne la xam naa la. yow kay noppi la. yow doo jéeg yem noppi. yow xoolal lenn laa lay xamal. waaw sama dernier conseil la la. waaw bu la joxul laa la. laa lay digal bu la joxul nga génn lépp ci bitig bi ndax tuuram moo fa ne. da koy fay par force lu nga wax loolu laay def. Ah, bu la joxulee lebal ndax ci tuuram la jëm moo koy fay. yow kay nekk pat bu ma dugg su ma duggee dina ma jox si nii wàcc naa. na la jox ma sama salañ sale. kay nekk pat la jox noonu laay def. waaye nag échange yi aw ko toogaay. dootoo ndax moor moom may woote dama ko war a dem. ah dootoo dama ko war a dem. donc bàyyi rek ma ñëw daw. toog a xaaral ma wut yoon yemul ci benn ndogu li. fii laay ndogoo moom saf saf. yow kay jërëjëf yow kay may ma rek bul ko may dara. yow kay may ma rek. yow kay jërëjëf waaye yow ñoo sukar ko di moo jox ci nii maa ci joxul ma dem lebi ko. aw leer sori na. ma ci aw di ma jox ko si nii maa aw buur kër wax la ñetti dëgg yi ma wax la ñetti dëgg. Ya, amoo loo may wax laa la ngaa wax la ñetti dëgg. ko di moo jox ci nii maa ci ba dama ni jeeg te sama morom waruñu dara. aw ko ko rek. waaw dama lebi ko dama lebi ko waaw xaaral ma dem lebi ko. abi si waaye yéen itam nag lii lan la xanaa yéen nekku leen ci waxtu bisu koor. bés bu yàlla sàkk ñu leen atte nag ñaaw na. may la fii laa ko jox ko suukar ko mënu ma ko jox. waaye yow. su ma ko jox ma génn dem lebi ji ko. nga lebi waaw. du sunna du farata. waaw abi suukar koor moom farata wala yàlla da ko boole waale ci ci ci weerum koor. foosu la. ah abi dinaa la xamal lu tut tabari abi bul yëngal si say ndax suukaru koor. dëgg dëgg abi respecter siru sa borom keur la kep ko lay topal toppal ko ba tax na nga fek sa jëkkër nga di ko yeewee nii nga diko defé defee ku ñu sa doom yek ku ku ñu sa jëkkër yek sa doom de moo ko jox daal man dégg nga suukaru dafa du farata du sunna soko ko mënee def boko ko mën mu bàyyi seex doguma sax waye ki ap xew ko rek la yor ndax nit da ngay respecter sa borom keur gis nga suukaru ko wo ta tax nga nga def dara fa jëkkër man kat ma fondement naa ko laaj suukar koom. <laughs> wax ja faram ko laaj na est-ce que a ko laaj ndax joxe na suukar koor ba pare. maa ngi dem ko wax amu ko mënu ko. fex wax la kii waay. waaw dama lay ndax Malick Malick moo takkoon sëb sëy ba ñëw di la wax naa la joxal suukar koor. déedéet. abi nag dama bëgg nga yeewu. ñu mel ni yow yeewu ci lii gis nga suukar koor. Hmm. du farata du sunna. Hmm. mën def la mënoo ko nga bàyyi. rafetal dong la. def loo mën wax loo mën soo ca nelaw wax nañu ko ba tey. xam nga dama àndal sa borom kër. lu leen yàlla war sa gële boo amee joxe. boo amul joxe amaana sax balaa weer wee jeex sax mën ngaa am ci diggante mbaa mu am jox la nga dem joxe. dëgg la dëgg dégg waaw ñoo ngi ci biir waaye. ngeen bàyyi leb bi nag ngeen bi. ngeen bàyyi leb bi ndax kii kii ko lebi jee buñ léegi nag amuñu ñu ko fayee. leen boo topp leen loolu gerte la loolu gàcce la gëm leen yàlla. Modou tey neex nga ma eh? tey ah. foofu waa jàpp. yow sama waay la voilà kay wax na dëgg. na eh, eh, ah, a ko wax ñetteel bi ma dolli ko ci. dañu wax dëkk moo gën may koor suukaru koor tey yii dina suul cëru koor.